coopérative d'habitat émergence sociale maanaam coopérative askan bi nga xamante ni moom moo dajalee fukki junni mbooloo ak ñeent fii ci biir Sénégal ak bitim réew gannaaw bu ñu tàmbalee seen projet bi taxawal lu ñuy duppee ñaari maison témoin dañu daal di jublu ci programme pàcc bu njëkk ci phase pilote bi ñu tàmbali. lu ni mel moo waral xew-xew bi ñuy waajal fas ni koo taxawal alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi bu 11h jotee ca Momboy mi nga xam ne soriwul dara ak aéroport bu Diass. bés boobu nag gannaaw bañ ko cëralee njiitum réew mi di président Macky Sall dina am itam ci teewaayu président conseil économique social et environnemental di Idrissa Seck ak Abdoulaye Sow di ministre bi ñu dénk wàllum logement ak urbanisme ak hygiène publique ak Alioune Sarr di jëwriñ bi ñu dénk wàllum tourisme ak transport aérien ak it ci teewaayu Pape Mamadou Ndiaye nekk jëwriñ bi ñu dénk wàllum artisanat ak transformation du secteur informel ak it kii di El Hadj Mor sopp na bi parrain d'honneur bu cérémonie boobule kilifa diina yi itam cëralee nañ leen bile xew-xew si fànn bu ne Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidiane Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Baye Abdourahmane Seck nekk xalif général bu Thiénaba Serigne Sidi Mokhtar Kounta bu Ndiassane ak Chérif Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes